ak bitim réew nuyu naa ñëpp siyaar ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp ñëwaat fii seen émission bi nga rafetate rek tubaarkalla ànd ceeg seen bu baax bi seen bu wóor ne tubaarkalla moom la Sénégal yëpp di seen kon nag gars yi yéen internet yi rassuré ko ne nga bu bi di rafetate rek rafetate nag Sénégalais bu ma dara bu leen ne c'est impossible xañ ma wax mënul ne ci sénégalais ndax xam nga ne lii it lii it dama li gën a doy waar gën a ci Sénégal mooy mënuñoo wax a waane ba coow li coowal taal bi ci bopp moom coow luñ coow rek il faut diwa laal diw diwa laal lañ ko fay ay waay waay leen li ngeen def li ngeen def seet leen ci yàlla barke rasulullah gi a ko taxaar yéen yéen la Sénégal randuwut ne du ngeen liggéey ndax gaa yi ci wet gi lu ngeen liggéey ñoo koy suulaat ndax gaa yi pom tar mooy àdduna taati kene ci lañ ne ba pare li gën a garaaw mooy ndeysaan tarkala xale jigéen ñi nga xam ne dañ leen jëlee waaye nee nañ Sénégal bii ñoom miis miis ñu ngeen miis xam nga ne fa euh, Fatima John mi ni ngeen ko def ñaaw hmm? jàpp ko boole ko ki naar yóbbu ko fële ca nga xam ne tubaarkal la moom moom moom mooy jam ñaari coote boole ko ñaari naar buleen ñu reege xar daani buleen ñu reege xar daani vraiment ni ngeen def ñaana sa fi ne naa yow ku doy waar nga lëf nga sëb ndax yow mun na encadré ay gone ngeen ne waaye mi Sénégal lañ ñu pare taxaw ngaa noo élèves majeurs vacciné buñ ko eh, ñuus na la ñuus loolu du wax loolu du sa wax munoo jaboot ay gone ñu ne Miss international lay def Miss Sénégal kon maa lañu def nga naan léegi seen néew ils sont master vaccin loolu waxi lu mu xale bu seen ndey jëlee ko ak seen baay tokk sa loxo master vaccin bi fee waratoo koo wax yaay seen kilifa boobu yaay seen ndey yaay seen baay ba pare def li nga def gën a danser yow waaw dama doon mo boo taxaw wax nee na yaa ànd ak ñaari naar laa nga genn naar gi fee ëppal ko genn naar naar gi ko laal gauche yow ñooy laal droite loolu ñaaw lii fi yéen ni ngeen di wisa ni ngeen di wisa ah lii ñaaw na nga nekk fee sa naar ñoom si nga ëffal ko naara naar loolu c'est vilain non c'est vilain li gën a garaaw nag xoolal waaw waaw ñi ko xam ñoo ko ah, waaye waaye eh, paafa yee paafa yow nga la mu bëgg ñaan leen rek ñu bàyyi loolu baal ma ñu dem ci leneen waaw i <laughs> waaye yow ah paafa ñoo wali non non non paafa non non non non wali non paafa nga ne ban doota nga ne ban doota la yow rek ñu bàyyi loolu baal ma ñu dem ci leneen eh, eh, paafa yee xam wax nañ fi ngeen doon def papa yi bul wax léegi da nga da nga da nga sopp barka sax da nga da nga sopp da nga sopp de wax ñi nga wax garaam de seetlu nga yaa wax li nga nañ ko nëpp nëppal papa yi mbaam da ngaa xewloo gën ko rek mbaa xewloo ko rek papa yi kilifa nga de kilifa nga de dégg nga booy wax da ngay xool mbir mi coow li jug na yow war na da ngaa dogal ko ci réew mi coow li lu ñu nëpp nëppal fu nga ne ko coow li li jënd ko ci ngeen war a ne waaye nëpp nëppal moom mënatu la ne naa ko lay wax ne gën a wax ne ah xam nga ne papa papa ma ne ma ne fay am na yoo xamante <laughs> man nag li gën a garaaw ci coow de moo ñi nga xam ne kenn daaw leen dogg ñooy wax ñi ak ma coow lii rek tëll ñëpp ñëpp waaye doo wax kay yow bu ma ndóor ñoom bu ma ndóor waaw bu ma ndóor yow <clears throat> dafa am solo maandu ay <laughs> eh, bu ma ndóor nga maandoo nii waaye jigéen ñaan dañoo laal di mu ko bu ma jaaxlee bu woon nag tay bett nga ma nag bu woon du maandu nag ak ah, rasulaay ponkal yaa ngay maandu ponkal yaa ngay maandu yéen a yaay yéen a yaay maandu ay ay misi yéen laa xam nag ma naa la bu kenn waxaat bu kenn ba ba ba déggaat kenn di ci yéen rek ne day dénoncé eh, noppi leen noppi leen yéen wax wartu leen bildee bu ngeen waxee coow dinañ ko gis fonk fonk lool dara xam naa ne bari na ay tayma yoo xam ne ay punkal yoo xamante ni di ah eh, boobu bu gën a gu ma ci dégg wax ci kenn ku ci ku ci wax eh dama wax li sax ngeen jàpp ne eh dama teel a seet sama gànnaar dama teel a seet ma mën naa wax nii tamit Sénégal yi di xalaat ni man dama teelal miis. ah ngay mën naa ne mën ngeen ko njab mën leen loolu ma ci miis man fenn daal la man ma sa woo. jugoo jugoo jugoo jugoo wax te bàyyi jugoo moo ma sa woo te ci miis la ma doole ma wax naa miis la ma doy ma ah. muy la ma doy tam ñu ci coow de <laughs> jugoo mu ramaw rek rasulam ko maawoo. mu soomaa woo ma denc bi ma wee ba nga wax dama ne aw ma paas mënuma ñëw te fi ma dëkk daa sori nga ma yéen a dee ma non non nañu wax dëgg nañu wax dëgg moo tax miis bu fi jiñ miis yi gillaa rek gillaa rek comme Pape Faye ak bu mu dul ñëpp bu mu dul maanu nekk Pape Faye nekk dëxëñ ma ne ko pandaas dimbali leen ngeen dëxëñ wax ji dëxëñ leen wax ji bañ leen loolu ñoo ko caw barke rasalaam la ñoo ko caw ndax yéen da ngeen a neexee nu ne góor gu leen gis xelam dina leen kenn waaye bu leen ñoo ko caw te léegi sax nag désormais Sénégal ku fi créé ay élection mais man nga koy dëggaaleel billahi dama lay duma sarde dafa amatul miis léegi yéen waa sarde dafa bàyyi ma dëj école miis école miisu yi ay classe amatul miisu école amatul miisu classe amatul miisu koñ ay affaire nawetaan ngeen naan miis yi non non non ay demi kii noonu amatul amatul c'est miisu dëkk dëkk Fatick wala foofu yooyu amatul miisu Kaolack miisu Fatick miisu Ndakaar amatul miiru Sénégal bi nga xam mooy cappaandaw la mu dul même miss du monde dama koy tere waa monde bi miss du monde ci wax dama koy mujjee tere miss amatul ci fii ci mi réew xamul daal Sénégalais yi nga xam ne dañoo bëgg présenté miss yëpp barke rasulaay miss nga bildee jox naa leen couronne bi kenn ku ñu ne ci yéen jàppal ne miss nga fa nga ne ndax ngir yàlla laay war suul nga mën a toog sa peegu ndey bañ fay dem ci élection miss kaay bi leen xewloo na ngeen toog sa peegu ndey te bu ma fi jógee nag ca façon rek fasa ka abalaa jëm loolu le 27 la novembre loolu loolu loolu dara du doy le 25 daal ku ma bëgg a gis nag ma fekk ci Messi Messi mi nga xam ne tubaarkàlla moo ne fii ci Sénégal di Wally Seck Wally Ballago mi nga xam ne tubaarkàlla bàyyam nag la ñu rendre hommage le 27 novembre bii ñu ànd ci ak Feseka wala Amadou Diagne borom Feseka le 27 ku fekkewul mu ruus ki dalay moos le 27 ku ko fekkewul moos ma dalay xuus